Sénégal ñi ngi leen di nuyu euh, kenn ku ci nekk rekk ci turam ak santam ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ngeen may ma ma jaal askanu senegal ndax euh, dañu nekk ci dëj ñu ñàkk suñuy kilifa euh, suñu baay suñu sëriñ Chérif Abdallahi Thiaw Lahi di xalif général Euh, des Layeen euh, làqu di suñu baay aussi suñu sëriñ ab sëriñ Abdourahman Seck di xalif général bu cene Thiénaba làqu ñu ñaanal leen suñu boroom may leen ñu yeewoo ci keppaaru yont yàlla Muhammad conférence de presse bi démb lañ ko jàppoon waaye dëju démb bi moo tax ñu indi ko tey ji di massawu sénégalais yépp ci ñi nga xamante ni ci feebar bi ñàkk nañ ci seeni ñoñ euh, di leen massaw di leen jaal euh, li ci des it euh, li nga xam ni moom la docteur yi digle ñu ciy góorlu bu baax a baax a baax ngir gën a moytu feebar bi di nuyu docteur Abdourahmane docteur Cheikh Tidiane Dieye bu jiite ab plateforme avenir Sénégal yu ñu bëgg nekk aussi coordonnateur m 2 ñëw ci suñu ndaje bi teewal fii M2D yëpp docteur ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci sa teewaay xam ni rafetlu nañ ko FDS gelawaar Guelwaar yëpp rafetlu nañ ko conférence de presse bi dañu ko woote ngir waxtaan ak askanu Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ni suñu la moom la suñu démocratie am jafe-jafe yi nga xamante ni moom la suñu liberté publique yi am ndax liberté publique yooyu moo ñu may ñu mën a taxawal parti politique FDS Les gelawaar nekk parti politique ah lépp luy procédure ci weer yu bari yoo xam ni waroon nañ ko def pour que le ministère de l'intérieur reconnaître officiellement ak kayit gu koy màndarga muy récépissé bi ñu mën ci jot booba ba léegi ñu def ko ñu def ci ay enquêtes yu bëree bëri léeg-léeg ñu woola ci am euh, complément d'information information com complémentaire yoo xam dañ ñu koy laaj dem nañu renseignements généraux déglu ma déglooti ma la trésorière du parti le secrétaire permanent du parti enquête yi ñu war a def yëpp ñoom ñu boucler ko boobu ba léegi mbir mi tàggatémbe ba jamono yee ci ginnaaw a ah, ñu wax ñi ni parti bi li ko téye dëgg mooy FDS les gelawaar force démocratique du Sénégal FDS les gelawaar nee nañ baatub gelawaar mënta bokk ci parti bi mënta bokk ci parti bi ndax nee nañ dañ koy dakkantale waaso ci réew mi ay banqaasam suñu constitution bi mayul parti politik mu taxawu mel ni ñu koy dakkantal ci waaso ñu jàpp ni argument boobu bu ko sénégalais yi déggee dina leen def ay ree dina leen jaaxal ndax baatub gelawaar ñu man ci bloqué parti politik résipise parti politique ndax ni ñoom dañ koy dànkantale waaso ñoom ñi ko wax xam nañ du dëgg sénégalais yi buñ ko déggee xam nañ ni loolu du dëgg loolu waxi tappale la waaye nag ki nga xamante ni moo nekk ministère de l'intérieur tabax carrière am lépp ci complot li mu am lépp mu am ko ci complot nekk ministère de l'intérieur sur la base du complot complot boobu moom la ñu continuer tey jii ñu jéem a jàkkaarloo ak FDS ndax FDS commencé na leen a tiital def nañ ay enquêtes yu bëree bëri dinaa ci ñëwaat. mbirum bloqué parti politique ci Sénégal dinaa ñëwaat ci gelawaar boobu du lu bees lu am ci histoire Sénégal lu jiitu ñun professeur Cheikh Anta Diop taxawaloon na parti bu ñuy wax rassemblement national démocratique nguur ga fa nekkoon nguuruk Léopold Sédar Senghor bloqué woon ko ba ñu ngi jot seen récépissé 1981 bi ab du Diouf daal di demee jamono Senghor. professeur Cheikh Anta Diop taxawaloon na ab journal tuddee ko siggi ñi ni ko ni nga binde tur bi baaxul ñu bloqué journal boobu mu changé ko daal di koy def taxaw lu yàggu ci Idrissa Seck créé woon na fi parti bu tudd réew mi ñoom administration boobu ñu bloqué ko ni ko parti politique mënul tudd réew mi ña ko bloqué woon ñoom Macky sàll mi tey jii ñoom ñoo ko mujj jox récépissé ñi ni ñoom duñ ñu jox récépissé boobu duñu reconnaître FDS parce que dañu wax nañu dindi gelawaar bi ñun wax nañ leen ni benn virgule bu gën a ndaw ci dossier bi duñu ko dindi Antoine Diome nag xam ni FDS du dindi benn virgule bu gën a néew ci suñu dossier FDS gelawaar moo nekk ci dossier boobu ca loolu duñu ko dindi ñi ni gelawaar dañ koy dàkkantal aw xeet séeréer loolu demewul noonu gelawaar baat bi ci boppam mi ngi jóge ci malenke mi ngi jóge ci baatu kele jaawaru kele jaawaru au sens propre mooy guerrier de la guerre mooy seigneur de la guerre au sens figuré mooy seigneur de la paix ay soldaar lañu woon yoo xamante ni ay xeexkat lañu woon ñu nekkoon ay malinké bokkoon ci soldaaru Sunjata Kayta dans l'empire du Mali Kelle Jaawaru yooyu ñoo jóge ñaani bu Sunjata Kayta dem l'empire di Gabou ñu jóge Gabou ñëw au milieu du quatorzième siècle dans le Sine tas ci Sénégal yëpp muy Kele Jaawaru ñu tudde ko tey Gelawaar ñu laal ci Malenke Mandeng séeréer pulaar wolof lu mu néew néew laal na juróomi lang nga bëgg ko moomale benn làkk ngir bloquer récépissé FDS gelawaar sembalu métissage culturel lu Sénégal la sembalu métissage linguistique bu Sénégal sembalu métissage ethnique gu Sénégal ndax dafa am ci mandeng yi dafa am ci malenke yi dafa am ci séeréer yi dafa am ci wolof yi dafa am ci pël yi barki démb fee ci Bosewa ci Fuuta maa ngi ciy wax ak sama benn yaay lan la gelawaar di signifier ñoom ci Fuuta mu ni ma li ñuy wooyee gelawaar ci Fuuta mooy borom ñoo xam ni sa ñeenti maam ñoo bokk sant sa ñeenti maam maanaam sa maam bi nga xamante ni ki meññ sa yaay sa yaay maamam sa papaam bu góor papaam ak yaayam sa papa papaam ak yaayam bu ñu dell bu ñu bu ñu bokkee sant ñeenti maam yi bu ñu bokkee sant loolu la ñuy tuddee gelawaar am na ci wolof ca baatub gelawaar bu ñu ko waxee lim ñuy fàttali mooy jom mooy fulla mooy fit ñun kon loolu moo ñu intéressé ci baatub gelawaar ba ñu jël ko dëxañ ko ci biir FDS ñu ñu koy màndargaale waaye loolu lépp sax sori na ni jëlee baat bi ca malenke yi ca empire du Mali ca Gaabu ca Sine ci biir Kayoor ci Fuuta mais gelawaar bi nga xamante ni ñun moom lañu ñu mooy gelawaar ni ngeen ko xamee ni mu génnee ci œuvre suma Ousmane Sembène ci livre Ousmane Sembène bi tudd gelawaar waaye surtout ci film Sembène Ousmane bi tudd gelawaar ngeen gis gelawaar nekk jàmbaar nekk borom fit di xeexal néew gi doole yi di xeexal jigéen ñi di xeexal ñi ñuy fitnaal mu nekk un patriote bëgg réewam nekk aji bëgg réewam mu jaral ko di xeex ci dëgg ba ñu boom ko di xeex ak fit ba ñu gelawaar googu nga xamante ni jeune su Sénégal yëpp boo leen ne lan mooy gelawaar xam nañ luy gelawaar ministère de l'intérieur ñoom xamuñu lan mooy gelawaar sëriñ Moussa Ka nee nax xamoo laajoo kooku xawma aw layam ñoom dañoo waroon a laaj ndax xale yi mujj a judd xam nañ lan mooy gelawaar gelawaar mooy ki ni juróomi baaraam yu ñu tàllal yalwaan la benn baaraam bu ñu tàllal ab joxañ la juróomu baaraam yi ñu tàllal yalwaan la suufeel nit la toroxal nit la néewal doole nit la jël nit def ko ab dak la jël nit def ko jaam la gelawaar bëgg loolu jeex bam ni juróomi baaraam yi ñu tàllal dafa war a wàcc benn baaraam bu ñu joxañ benn baaraam bu ñu joxañ loolu aw fit la benn baaraam bu ñu joxañ loolu dogu la benn baaraam bu ñu joxañ loolu pas-pas la benn baaraam bu ñu joxañ loolu mooy bëgg tabax sa bopp ci moom sa bopp tabax sa réew loolu lañu bañ ci boppam ndax gis nañ ci ndawi Sénégal gis nañ ci ndawi Afrique benn baaraam bu ñu doxañ boobu moom moo leen ci derangé ba ñoom bëgguñu tey jii baatub gelawaar boobu daldi di di jóg kon ñu wax Antoine Diome ñun FDS tey la ñu gën a nekk ay gelawaar tey lañu gën a nekk ay bañkat tey lay gën a nekk ay jàmbaar di xeexal Sénégal di xeexal askanu Sénégal ndax Guelwaar nekkul lu dul un gelawaar Guelwaar signifie wu lu dul patriote Guelwaar signifie wu lu dul kuy xeexal boppam kuy bañ nooteel gelawaar nekkul lu dul loo nekk li mu nekk mooy nekk nit koo xamante ni kenn mënu ko jënd loolu dong mooy gelawaar xale yi juddu démb ñoom xam nañ lan la mooy gelawaar ministère de l'intérieur ñoom xamuñu lan mooy gelawaar nee nañ gelawaar dañ koy dàkkantal askan ca parti politique bu ñuy dàkkantal askan du juddu fii ci Sénégal moom antuwaan jomm moom la wax waaye antuwaan jomm na xam ni ki nga xamante ni mooy tey nekk FDS kooku nekkagul moom tuuti na pour ñàkk nekkal FDS xeex bi nag dina yàgg mën na bañ a yàgg mën na bañ a yàgg waaye ñun waajal nañ suñu bopp la bataille sera culturelle parce que dinañ ko xeex au plan culturel dinañ ko xeex au plan intellectuel ndax suñu culture yi nga xamante ni dañ leen a néewal doole suñu cosaan yi nga xamante ni dañ leen a néewal doole tubaab yi fonk ñu leen ñoom ñi remplacer tubaab bi fonk ñu leen ñun ñu bëgg ci tibb ci li nga xamante ni ñun moom la ñu moom li nga xamante ni ñun ci ñun la bokk suñuy maam ñu jële ko suñuy maam muy suñu culture ñu tibb ci ñun lu ñu tabaxee suñu identité ñu ne du fi amee kon ñoom décision bi ñu jël c'est contre nos notre propre culture contre intellectuels yi la contre cinéastes yi nga xam dañuy def création mu ñoom Sembène Ousmane ñu mel ni ñoom ñu tibbe ñun ci ñoom Sembène Ousmane ak ñu mel ni moom ci li ñu liggéey ngir jox ko askanu Sénégal ngir jox ko jeunesse su Sénégal ngir dex ko jeunesse su africaine ba tey jii bari na ay journalistes yoo xam bu ñu ñëwee suñu siège di ñu interroger li leen di jëkk intéressé mooy gelawaar mooy lan interview yi ma am yëpp ak presse étrangère bi suñu ñëwee loolu moo leen di jëkk intéressé kon bataille culturelle la boo xamante ni dinañ ko mëne am na ay intellectuels yu bëri yoo xamante ni fii fan di ngeen leen dégg bokkuñu ci politique bokkuñu ci FDS mais xeex bi dinañu ci bokk waaye xeex bi aussi xeexu politique la tey jii maa ngi gërëm euh, Cheikh Tidiane mi nga xamante ni ñëw na fi am na ñeneen ñoo xamante ni dinañu ci wax ndax dinañu xeex ak Antoine Diome ba mu xam ni moom tuuti na ci bloqué récépissé FDS waaye aussi bataay bi bataille judiciaire la bataille judiciaire la waxtaan nañ ak suñuy avocat ah devant la chambre administrative de la Cour suprême dinañ attaque mesure boobu pour excès de pouvoir ndax teguwul ci dëgg teguwul ci maandu teguwul ci ni nga xamante ni noonu la suñu institution réew mi di di doxee donc daal ñu xam ni FDS dina continuer di utiliser vocable gelawaar FDS les gelawaar Antoine jomm na xam ni ci boppam loolu ñunu duñu ci renoncer benn virgule duñu ko changer ci ci dossier bi parce que li ëpp doole mooy reconnaissance de notre peuple reconnaissance de la société reconnaissance populaire boobu loolu moo ëpp solo ca am nañu ko dañuy continuer boobu di xeex pour être des millions et des millions et des millions de de de Guelwaar donc euh, mes chers compatriotes avant may jox la